اهدنا الصراط لا بك الثواب ما قرأناه وبركة ما ترناه من كتابك عزيز آدية وسير ورحمة متسر من كتاب عبدك سرين عبد الأكرم مكي وشيخ صالح وشيخ عمر المختار مكي على ما يصواب ما قرأناه وبركة ما ترناه من كتابك عزيز آدية وسير ورحمة متسر من كتاب عبدك sëñ Abdou Karim Mbacke wa Cheikh Chadi wa Cheikh Sidil Mokhtar wa hiya alayhim allahumma absi sawaba salika ilayhi nuran shabayna yadihi allahumma akrim bihi ma qawma wa yasir bihi sabahum wa da'i bihi sabahum yuraqi maqtan sarabahum allahumma ansi hodatuhu warhamu qurbatuhu wa tajawaz anhu bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin اللهم توفنا مسلمين لا مبادلين ولا مخيرين ولا فاتنين ولا آمين آمين آمين يا رب العالمين subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin faatiha ak saatu barke borom Tuubaa yal na yàlla doon fi jàmm ñaan ci barkeb bis bi yàlla na suñu borom nangul ci barkeb ñu baax ñi nga xam ni ñoom lañ dalee tuddi bis bi ba ñu agsi fii ren tuddee ko Cheikh Abdoul Akram Mbacké kon yàlla yàlla nangu ñaan yépp te nangul ñu bis bi te fu la leen njëkkoo ba mu kawe njort te am nañ ci rafet njort ni dina kawe njort ndax at mu nekk day yokk kon loolu ñu bàyyi ko xel te xam ni sunu boroom fépp foo jàpp rek te way ci am ci fulaak fayda mu jàppale la ci nga jàll ca kanam kon lii yàlla nañ ko jëmee kanam te way ci dégg nga nag te xam ne ku ci jàppale di nga jàpp ci leneen loo xam ne gënut kon nañ jàpp ci lii nga xam ne moom la ñu tànnal di ñaan ñi nga xam ne ñoo ko taxawee di at mu nekk ñu di ko gën di man te yàlla guddal seen fan te may leen wér yombal seen i ba lépp luñ ci yéene rek ñu am ci lu kawe njort ñu ngi naanal ñëpp ñu fekk ko déwén ak jàmm nag te rafetu fekkin di sant ñëpp di gërëm te xam ne alxuraan dafa nekk loo xam ne nii mooy li nga xam ne moom la ñu suñu boroom tànnal jaar ko ci yonent bi sallallahu alayhi mu bàyyi ñu ko fi soo ko dem ba bi muy tàggoo tàggoo mi mujj boole na ci ne ah, danaa leen bàyyeek ñaar waaraate yoo xam ni bii day wax bii du wax bii wax nag mooy alxuraan ji kon suñ ci jàppee rek suñu yëpp dana tënku ci njubug suñu borom kon nañ ko fonk baax te góor góorlu ci sëñ Tuubaa mi ngi digle ni lu néew néew bis bu nekk na nga jàng alxuraan doonte ñetti isib la kon alxuraan dafa nekk loo xam ne dañ ko war a saxoo di jàng waaye doonu lu ñuy mus léeg-léeg rek bàyyi ko foofu waaye saa kon nag bu ñu ko jiitalee ci bis bi ñaan yàlla na yàlla nangul ñu ko kon taxawe nañ taxawaay bu rafet bu lislaam nangu kon loolu ñu bàyyi ko xel ñuy wax ne maanaam li nga xam ne jotoon nañ koo jàng ci kaamil nekk na ñeenti téeméeri kaamil ak fanwe ak ñaar ci li nga xam ne moom lañ lim bi ñu amagul nii lu mel ne xasida yi nag lim bi xam naa ne bu ñu ko dajalee fekk ngoon dinañ ko jottali incha allah kon yàlla na suñu borom nangul te yàlla defal ñu taw tawfiix ak taysir waxtu wi jot na kon su ko defee ñu taxaw foofu eh, di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp itam lépp lu gën ci ñun lañu ko yàlla defal te mu nekk lu ñu jig te nekk loo xam ne nii danañu taxa tënku ci njubug sunu borom bi eh, di sant ñëpp rek di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakaatu. des walla yi kon ñu dem mu des ndax nañu moom kat bani fet ñu dëj fi nun ku ni defal defal naalam na ñëpp gëm yàggam fi ak weeru cëram bam tàmbalee ñu gën a gëm ñu daa di dem te àggagul demam gi daa diis fi nun wax li tax mu di fi nun danoo bëggoon mu def fi nun nu am ngërëm ba amalal su ko defee nu amin aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi arrahman irrahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki waa daaira xale yi sëriñ Saalihu waaye mbokki adduna bépp ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen euh, ziara bu baax di am mbégte lool ci euh, teew bi nga xam ne teew nañ ko ci sunu bis bu am solo bi di bisu daayira xale Serigne Saliou muy cant annuel ñoo ngi ci sant yàlla bu baax waaye itam ñoo ngi profité di nuyu waa adduna bi yëpp ñuy profité di nuyu waa dëkk bi yëpp li ko tàmbalee ci euh, ak euh, Serigne Mokhtar Jonn mi nga xam ni moo fi teewal Serigne Touba ñu ngi koy nuyu bu baax waaye jaaree ko ci euh, Ilimane Ibrahima Jonn ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen euh, sant waaye tam di gërëm ñi nga xam ne depuis boobu ba léegi ñoo ngi ànd ak ñun ci wàccaay week liggéey bu rafet bi xale yi nga xam ne ñoo nekk ci organisation bi ak décoration bi muy mbégte goo xam ne feeñal nañ ko bu baax a baax ci xale yi ñoo ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm di wax ne nag. bis bi day bis boo xam ne boo seetee ci programme yi da ci gis dix-huitième édition muy bis boo xam ne bis bu ñu yàgg def la waaye euh, bis boo xam ne euh, tawféex yu bare bare dañ ko ci gis waaye bisu sant la ndax kenn ku ne xam ne daal bis la boo xam ne bu yegsee rek kenn dootul amaat euh, benn yitte lépp rek dañ koy def ci bis bi kon nag ñoo ngi ciy sant ñëpp di gërëm ñi nga xam ne itam xëy na bu ci kanamee dinañu gis délégation yi nga xam ne ñooy ñëw doonte yegseeguñu waaye xëy na ñoom ñoo ngi ci wàccaay waaye lii am solo daal mooy Euh, buñ demee ba ca kanam cérémonie bi ak yooyu yëpp yi ci mën a xew xam naa du ñàkk incha allah bu ci kanamee yooyu yëpp dina feeñ waaye daal mbégte daal feeñal nañ ko baax a baax sant nañu gërëm nañu kon xam naa ñu ngi wàccee foofu kàddu yi donte bu ci kanamee incha allah daañu ci barkeelu waat salaamaaleykum mbokk julli yi mbokk taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax ci turu euh, ki xale Serigne Saliou Touba Pambal ñu leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax a baax di leen gërëm ci taxawaay bi ci wàllu organisation bés bi mooy cant xale Serigne Saliou bu Touba Pambal ah, ñu vraiment wax dëgg si yàlla taxaw bi daal rafet na wàllu kii bi wàllu organisation bi rafet na ndax ah, boo gisee base bi wax dëgg si yàlla xale sëriñ Saliou daal ñëpp a taxaw ñëpp taxaw daal waa dëkk bi ñi fi dëkk ak ñi fi xaw a ñi fi sore yëpp ñëpp taxaw mbir mi nga boo gisee wàllu organisation bi. moo ngi nii làmp yi macha allah installation bi rafet na tant bi décoration bi rafet na te boo gisee décoration bi mel ni wàllu bleu blanc bi xale yi Serigne Saliou luy seen kii mooy seen couleur bleu blanc la waaw dégg si boo gisee kii bi moom rafet na loolu macha allah kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di bëgg seen teewaay te euh, ngeen teew nu mu gën a kii daal. ndax fii moom ay taalibe Serigne Touba lañu berndeel ak ay xéwal yu bari ñoo ngi leen di waajal ngeen ñëw ak jàmm ngeen dal ak jàmm bu soobee yàlla kër yi aussi kër yëpp la ñu ubbi di xaar gan yi waaw ñu ngi ubbi kër yëpp di xaar gan yi di teeru ñëpp di fas yéene teral ñëpp ngir jërmi sëriñ Saliou waaw. gërëm di leen sant rekk di ñaan yàlla yàlla ñu teewati ko ay diwén yu baree bare ñoo ngi gërëm xale sëñ Saaliw yi amuñu seeni pay ñu ngi leen di gërëm di leen sant yàlla na yàlla guddal seeni fan musal leen ci musiba yi ak balaa làqal ñu fa yàq yeegul kontaan nañ bu baax a baax ñun seen seen yaay yi de ñun ñoo gën a kontaan ci seen cant yi ndax cant yi ñoom xeebuñ ci benn boor ñoom ñëpp moom dañoo bëgg nit bu ñu gisee nit ñi daal duñ leen gëmee sax wax dëgg si yàlla ku ñu gis rek dugal ci seeni bopp sant nañ leen nag fu cant àgg am ñu seeni pay waañ wi togg nañ ci laax ay ceebu yàpp ay beftek salaat dara desul wax gileem nag ginaar dara desul wax dëgg si yàlla jàmbar lañu xale yi kay liñ leen di ñaanal yàlla moo xam li seen xol yi li ñu bëgg ci seen xol yi yàlla moo leen ko mën a may yàlla na leen ko yàlla may aousu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammad wa sallam mi kañi ko nekk ga tegaagare naga kañaagare mi ñaanal we ñaane sin muntaxa el ndiga maañ boy ñaanal si Sidi Moxtar na sëriñ Mor Talla na sëriñ Saliou ba el que sëriñ Tuubaa yéen loo ko teeru ga aljana boobu sant bu baax a baax bi sant sëriñ Saaliw bu baax yi una ne yaay waral beeli wate ndax beeli wate en bela fo ne ya beska cant ya beska sant sëriñ Saaliw bo timin wo yus wi ga bes dengeex na yus wi ga lax dengeex na la yurus o tax na beeli wate won tewaay masala boobu gërëm ko boobu sant ko i dalawoga joruñi ɓoy di cheikh basir e el ndiga mañ na joruñi tamga siyanca tout nawa daara xale serigne sale ɗi nga xam ne yawa ɓeeɗo beeli beeli nak en bila fule ne wax dëgg si yàlla wa kar mbi wa tena o woñ bo yax moom ndax bobi bala dara bobi gërëm waaju ci bu baax ndax fo malaga waaju waaju ci tout yaa ca waral ñuy wote ndax wote ñi boy la moom waa dëgg si yàlla rek su ne rek la bobi mooy moy ci cendi moy funa wayu cigaro ci nga barsaka ko elno ko yaram suñu jëwriñ yi suñu suñu Moussa di taxaw bi rafet na trop daayira bi nag am na ñu nekk daayira laay bu wen diga la laay bu wen nga Ndakaaru boobu gërëm bu Ndakaaru bu baax boobu gërëm bu wen diga tamit ndax malaga liggéey yaa boy boggawo ndax ñaa boy ko dum tu boy boy juwe ka kaddo boy wataan bi boy jubowa boy ko tumin boy ne ñaa foy ne ñaa boy wataan tu la ko weranto ndax malaga e ñiw ɓo wiin o kuni yiga kiin o euh, ya pambal ya pambal dal ya tutangeji serigne saleh di mor mor tala diallo yeyi funo yeyi ndiga forari yeyi saso mbi funone dadugin aduna a ah, ɓoɓe ñanante o baax a baax da yenox el ndeka gënal di ye kolkox ndax yeña funone ye ye ye yoobi dal ndax di yadina lak lak fo malaga lak baaro layla la fo malaga ya hirndi ya raxndi dayoo ci sambara dawara daal bi dawara tarbiya omaji ndax di yadina la kalaale go fumin gona la fumalaga lah denga me lago ja ga misal me lago lah denga malaga ya tarbiya boy ya tarbiya jorinti bi konek xodan hafce ga beri dal bi taxna nya botum ngetu el ka yokok el kan asaga ga beri ndax fumalaga ya ñu ya tas ga aduna ka jamu ko ya tas ga aduna li ñu ñu bo lakidi ñi moom boo lakkee di wax dëgg si ndax ka jaamo ko ko nag soli fen ponkola fanne ka jaamok bala fo jaamo ko bi fen oma kama ga ko ma ndax kerek kamin ka jubandu ga ka ga ka ilika ga ka juruka fo ke bi ka maga fan ka jubande ñer fo ka jubande fa ka son fo na ka jubande ñara fa ka son ñun waa bo bi daara xale Serigne Sallé bo gërëm ko nekk ga teewaay ga re bo fu no bo wala yanci dal ba tu ji na ɓoy nu ɓoy ah, fu no ɓoɓoga deeri ɓoɓi massa warago ci a fo malaga ɓoyologo massa ndax seddi yaga fay serigne sali mom lagen fay serigne sali lagen fay ndax fo malaga ɓo ñawtumiga kelax fo malaga wiila yokogen ga fa yoki noon nak la yagara goor yalla jaman uci yokkuk ndax o malaga ɓo ñan ka yokkuk bu baax a baax bi ɓo yenka bu baax te serigne sali ñi ɓo ñan gare dega si yalla ko el moy ko dum magol l'islam ko fu no ya pongol bi balak diine bu baax a baax liggéey fo no te la yow teewal la yow dong ah, gërëm ko nekk nga teewaay naga ɓoy funo ya saga ci maya din gërëm ndo bu baax a baax nga teewaay moom wa mar moom noon mbokku taalibe dëgg si yàlla beli fo malaga yus moom ini ɓoy lagga moom ɓoy mo siriga lagga fen te fo malaga o ka yoko ndax fo malaga waña yegi wi di ara waña yeka te tewe ne ɗo kanci lagin ɓo tik lagin ɓo waaw wañi weka fo malaga yawi malaga nagi masala na waaw na gelam ci na pabe ci macha allah te fa malaga en kaw figi surtout sa bagaw boy lak boy sakku nak kalak ngerum seri saleh ndax fa malaga kanca mom bon sun salu yañ ka gaw calali fa malaga ka chef ga chef bejo na fa malaga cheikh amar waaw calali mom calali mom wa walloen fa sen sen fa gankale waaw wata xana boy bi ñaan bu baaxa baax be fu no lagen tawat ko eno ka safara be fu no ye enu ka keñaga ko elndeka tum te yel te ɓo kurga yelayo dong te fo malaga sa selal am am tigal selal ca bu baax ndax fo malaga aduna laago solo ay nenan ɓo won hëlis fo fanuga fo neya faalo fo kana fo ñak ɓo wo ba tax na ɓe kuduga a ah, ndax aduna moom laago solo fo jango malaga gënd fo nak kox no traye bamel mene lool sa gogol got gaga jaamu kox yaga tas di naka sa yermande wo ka fon so o weranto ya fon moron futu moron futu futi comme hafo nya fu yene hafo fu yene moron fe wala no figi ndax mo ga ga tasi waaw boobu sant bu baax a baax biir moom macha allah boobu ñaanal xa yi wa yéen ko yokku bi en ay télé télé incha allahu rabbi ñuy sant bu baax a baax di gërëm. maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp. di ñaanal Cheikh Mountakha Bachir yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér di ñaanal kilifa dini kilifa aada yi di ñaanal li sos li ba fi ñu yegg si jëmmi tey ak di ñaanal Serigne Bachir suñu jëwriñ bu baax a baax a baax a baax di ñaan lu ñu def ren bu diwénee ñu def ko fukk ñun daal tu tànk sëñ Saliou lañu tu sëñ Saliou lañu lañ tout tànk sëñ Saliou lañ moo tax a jóg liggéeyal Serigne Saliou tey ak ëllëg ba bu ëllëgee ñu am ci ndam incha allah. ñii nii muy waa soxna yi muy sama mbokki soxna yi ñun ñoo nekk ci waañ bu mag bi waañ bu ndaw bi beneen waañ bu mag baa ngi ne li suñu yaay yi ñoo fa ne ak yeneen jëwriñ yi ñoom ñëpp. fii daal ñu ngi fiy defar xeetu baax baax yi xeetu bendeel yu baax a baax pour pour maanaam dongo yi war a ñëw ci bés bi daal ñëpp ñëpp ak kilifa yi war a ñëw ci bés bi ñii noon defar ay ginaar defaraat ndawal tamit moo fi nekk daal. mi noona amma sulay ma bi sar fi almasiyati kay ma taxul bi الفاتحة